ñu jëlee liggéey pro va di waaye liggéey amu fi dañu dem ci gaal et cetera alors que réew mi liggéey ma ngi fi pour encadrer tout ce budget la on a dit il faut le réorienter dans l'inclusion encore faudrait-il que nit ñi am accès à l'information ce qui ramène la question de la disponibilité des gouvernants la disponibilité des gouvernants et leur capacité à communiquer avec le peuple wax li ñu li ñu leen sant wax li ñu def fekk yow li ngay def sax mënoo ko expliquer nit ñi mais comment veux-tu que nit di di di xam loo looy liggéey parce que loo def te nit ñi xamuñ ko ak loo deful ñoo yem comme si tu n'as rien fait tu fais et personne n'est au courant tu peux même expliquer def bi kay xanaa moo gën a jafe wax bi au courant kuy kabañ moo fi amoon léegi lan moo am ci courant gis nga. tali yi ay kàmbala ay marigot nga doon gis si tali yi léegi tu as partout des routes des autoroutes tu as tout un train tu as et les universités et on ne peut pas capable d'aller défendre ça on laisse des gens qui n'ont aucune capacité aucune qualité qui ne comprennent rien du tout di wax ba bëgg ñu wër comme ça si réew mi loolu loolu nag moom ci ñàkk fayda la bokk parce que nit da ngay am ful sa bopp am fayda sa bop waxtaan ak masla ku ne xam na ne ma nitu jàmm la mais nag am na loo xam ne du ma ko nangul doomu adama du ko nangul kenn kenn kenn pas accepter qu'on nous marche sur les pieds comme ça qu'on veuille euh, ce pays-là le mettre sens dessus sens dessous au nom de quoi au nom de quoi on le ferait et on l'accepterait ceux qui pensent d'ailleurs et je les mets en garde qu'ils peuvent semer le chaos dans ce pays, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Ils pensent que moi, en tout cas, je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures, c'est qu'ils n'ont rien compris. Bien. Moi, j'ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir au président élu. J'espère qu'il viendra d'ici, que ce sera vous. Mais moi, Dans mon magistère, je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. Jamais. Maintenant, ceux qui veulent le tenter, ils n'ont qu'à essayer, puis on verra bien. Quand Ça suffit. Qu'est-ce détruire le pays comme ça. ci ay wax rek fen sos jaxase ay rajo télé télé chaque jour rajo télé mensonge internet C'est comme ça qu'on va développer le pays. C'est comme ça qu'on va donner l'emploi aux jeunes. Il que les gens arrêtent un peu et qu'on qu s'organise pour sauver ce pays. Dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. Tous les jours, vous voyez à la télé, les pays les plus développés sont inondés. Il y a de l'eau partout. Les gens ont des difficultés. Le monde est ainsi fait. Il y a la guerre partout. Ils sont là, le chaos, avec des complicités. Mais fille, pas, ça ne se passera pas ici au Sénégal. Non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tenter. J'ai vu des, des, escrocs là, bien de cadres, casamassés, qui écrivent au président. Moi, je ne vous réponds pas. Je réponds pas à ces gens-là. D'abord, il n'y a aucun cadre. Ben, nid le ou ben le cadre signé. Moi, je ne fais pas ce temps-là. Comme. Il faut respecter les gens. respecter les gens mais yéen yéen a war a gën a am taxawaay taxawaay pour merci la dette s'il vous plaît mi je crois que Baboucar toujours Babou Baboucar wax nga ci njàqare yi ngeen am ci wàllu campagne bi waaj a ubbi may dara sa xel actuellement gouvernement mu ngi structuré un financement ci wàllu woowu am na quarante trente ou quarante milliards qui vont être destinés aux OPS d'ici euh, le mois de décembre c'est arrivé pour ñu fay OPS yi nga xam ne ñoom ñooy def campagne bi war nañu fixer aussi le prix au producteur il faut souhaiter aussi que acteurs yëpp yi jënd gerte ñëw parce que comme production bi day yokk mais gouvernement xam nga du moom mooy jënd gerte le gouvernement s'il achète le qu'est-ce qu'il va faire de la en fait de mbaxalu Saloum ou quoi gerte jaar waaw gouvernement d'acheter l'arachide mais nous on accompagne na accompagne. Je suis allé en Chine obtenir que la Chine importe de l'arachide. Ce n'était pas évident. Chinois yi ñëw di jënd ñu ne ah oui Chinois yi Chinois mais quelque foog nga xam loo bëgg aussi on bëgg gerte gi des ñu am un million un million et demi un million sept cent mille tonnes mais qui va acheter ça parce que notre consommation nationale c'est autour de trois cent cinquante mille tonnes tous les gerte caaf que vous voyez là tous les que vous voyez. Tout ça, si tu réunis ça, c'est 350 000 tonnes avec les semences et tout. L'église de Nokhedo. Donc, huiliers yi dinañ doon jël à peu près léegi baretul même pas cent mille tonnes environ avant ils prenaient beaucoup plus ils peuvent aller à cent cinquante deux cent mille tonnes et après ça donc maximum six cent mille tonnes yow nga am un million sept cent mille tonnes soo ko jaayul si biti loo koy def et puis dañ koy def pour jaay donc il faut ñu bàyyi foo débat yooyu waaw chinois yi ñëw nañ bu chinois yi ñëwul musiba baam ci àll bi c'est vrai qu'il faut protéger les industriels parce que ñoom it am am nañu ay liggéeykat derrière mais béykat yi ñaata lañu des millions de personnes donc équilibre yooyu la état di xool pour vraiment am balance mais dinañu jël kem suñu kemtalaay kattan pour que campagne bi mën a jaar yoon te bu ñuy wax prix plancher mooy prix bi gën a bi nga xam ne kenn mënu ko jënd mu yées ku ko def yoon mën na dal si kaw waaye bu la neex nga jaay si kaw bu ñu ne prix bi deux cent quatre-vingt la par exemple ren xamaguma d'ailleurs lu ñu ci fixé te bi ñu ñëw fanweer la ak juróom yoo xam ne d'ailleurs état bi moo doon joxe presque juróom-ñaar dërëm kilo bu ne xam kon changement am na kon bilan bi li imam wax même l'imam son discours est tellement clair secteur boo mënti jël la comparaison mais elle est claire elle est claire mais nit ñi dañu wax loolu ay faux débat ay bilan immatériel yooyu droit de l'homme quel droit de l'homme droit de l'homme dafa tax ngay def lu la neex ci réew mi foog na lu la neex rek mën nga ko def et puis ay droit de l'homme société civile xaw ma lan ak lan non donc il faut que ñu dalal xelu béykat yi ak opérateur yi si mesures yi gouvernement bi jël déjà cent milliards la ñu ren ci préparation campagne hivernale cent milliards subvention engrais jiw matériel agricole et cetera ban réew ci Afrique de l'Ouest mooy def autant ci accompagnement béykat yi donc nag loolu aussi dañ ko war di ko wax tout le temps ça c'est le rôle du gouvernement c'est le rôle des parti de la coalition c'est le rôle des politiques de dire politique publique yi ñu taxawal c'est le rôle aussi des direction et des service techniques pas su l'angle politique ñoom c'est pas de politiques wala même bu ñu politique ñoom service public la ñu def mais war nañ mën expliquer nit ñi politique publique yi nu mu do nuñ ko bindee pour que askan bi xam li ñuy def mais bu nekk làkk ay français bla bla yow français bi ngay làkk moitié population bi dégg ko mais loolu mooy yaa ngi sànni sa wax même bu fekkee mooy suñu langue officielle bi ñuy bindee parce que voilà binduñu alphabet bi ne woon naa bu ñu yombaloon tey Sénégal romb na fii mais ku nekk andi ay xam-xam yu compliqué bu ñu la bindalee pulaar mënoo ko liir parce que c'est trop compliqué séeréer mënoo ko dire c'est trop compliqué mënoon nañ jël lettre latin mu gaaw nga lire ko ni nga koy déggee mu jeex mais non loolu j'ai demandé au ministre de l'éducation waa alphabétisation nañ ñu yombalal l'alphabet de nos langues nationales bu ñu bëggee ñu mën di bind suñu langue nationale dem naa bu yàggul Kenya ak Tanzanie ñoom dañuy bind seen Swahili bi amul problème tu l'écris boo demee Malaisie sijaada dañ la koy bindal sijaada yow mi gan boo da nga xam lan la pourquoi ñun suñu suñu langue yi mënuñ ko bind mu yomb il faut ñu wane ne ñun ay savant lañu def loo xam kenn mënu ko xam problème la loolu aussi mënoon nañu dimbale lu bare bare bare ci développement bu fekkoon ne suñu langue la ñuy bind à lekkool dans les universités et cetera et cetera parce que réew aussi nag après soixante trois ans d'indépendance yow amoo sa langue bu ñuy jàngale ah sa monnaie problème la donc loolu dañ ko war loolu mooy vrai débat yi ça le vrai débat économique le vrai débat de société mais c'est pas nekk fii chaque jour sur des faux problèmes au quotidien alors bu loolu weesoo